you yow alo capacoli i ma jox sa nëmba kool est-ce que kii wooree Ndakaaru kaw la got ña bokk yoon mbayik nga ne yaay def buzz yi ak sa saar yi du yu du waali sa koor gi fay na saar yi waa ñi lànk bañ di or got lu tere nga caw sa xiir ak ñi indisposé trois fois ci weer wi nga bàyyi ci biir pardon ma laaj la lu tax ba ci gu koor di yéex rak tat bu digg jeex fii di tàng fii di feex got masaaj ci wax la fi mu ne boîte ak baar a dem vacances bu ñuy woor ñu rey la dëj yaa ngi woor mais yow sax fooy ndago fan Israël yaa kat idi ndamal kajoor sa koor gi saf na lool ba tax na takku deri di mer xam nañu lakk lacrymogène xef wakk fi ñu door la bal xam naa sa yoon nekkul ci match ma makk de joxe na ñaan nee na nañ def salaatu ala ala fatiha sama crédit mi ngi signalé mais got sigil ndigaale étudiant yi laa lay jaale sinon ñu ndogoog jàmm waay